walada yàlla nee na maa ngi waat ci yaay di waat ci baay man mi bind waat ci liir bi xoolal toq mën yu bu doon nit di wax di Iran ndaw alaaji Malick ne ma Iran bàyyil yarul de teel de bul tiitaru de bul rëy de ñett a ngi la topp yoo xam ne du la bàyyi mukk ma ne ko yàlla Malick mu ne ma sa njëlbeen sobe la muy mën yu ma ne ko ak ban mu ne ma sa biir bi mbaq gi sobee ci ne muy li ma lekk ma ne ko ak ban mu ni ma boo dee médd nga mu ne ñett yi ku mu séq luy tiitaru looy aj mbagg luy dëngalu Maodo ko bind nee na ñett a séq nit sa njëlbeen mën niyu la xool ko ci doom ji nga jur leer na kon kuy dox ku ne ci sobe nga juddu kuy dox ku ne ci sobe nga juddu sa biir bi oto manq la sobee ci ne soo dee medd buñ la yéexee suul nga xasaw ay na tiitër looy damm mbagg looy wax famille looy naan kii ma jur man nii laa toll samay maam lii say maam lii lañu waaye yow doo laa say maam lii lañu mais yow doo ndax defoo li say maam def tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat wala ku mag ta sabtum yàlla nee na kuy tiitaroo sa maam yambar nga ñàkk nga fayda sa maam ñëw na ak li def yow lay xaar nga ñëw ak li nga def laysa alfata man yaqulu kaana abi balil fata man yaqulu ha anada góor boppam waaye di way sama baay ñu ne ah loolu mooy doyee di nga di way sama maam ñu ne ah di nga kii la diw ah kii laa doon dégg waaw est-ce que xam ngeen ne doomi xat gën naa seer doomi borom kër gi ci bo jigéeni doomu borom kër gi doomi xaj gën na koo seer big bul amul xaj dana jar cinq cent mille xaj kër gi ñu ko wasinee mu màggee fi jar fi cinq cent mille doomi borom kër gi trente mille lañ ko jox lañ ko war a jox te te ne tëcc ñu avance ko vingt mille ko dix mille xaj génn ci 500000 génn ci 1 million ngay xaj doom ngay doomu xaj yow doomu xaj a gën sa ndey gën la. yeneen bi nee man zanna annahu xayrun min al kalbi fal kalbu xayrun minhu mu nga ca duratul xaj yi neen ustaas yi ko jàpp ne maa gën xaj nga njortu ko yeneen bi nee na la gën jaral sa xaj géwél sam boo xëyee tegal ko pooju ganaar mu lekk nga ànd ak moom dem rëb bi lépp ku njëkk a tëb xel ya muy daw du xeli xaj xeli fay bor la xaja maandu waaye nit a maandoo di moo tax gis nga yéen ñëpp baal ma ah sëñ baal ma ko foofu baaxatul xañ nga xañ nga foofu du xañ nga dégg nga nee na xaj na xaj loo ko jox mu xajoo ko muusa yi baa doole bi mu du lekk cere du lekk ceeb jën ak yàpp rek xaj nag gis nga loo ko tibbal sëñ bi lu mu tuuti tuuti mu lekk ko martu ñi tëdd du jàkkaarloo yow di dalay wan gannaaw parce que su jàkkaarloo yow day yaakaar ne da dalay wax ne dolli ma xaja gore am na ko dëkk mi dina faal ji benn pël la mën naa am dina ko déglu dama fekk ci benn sànc ci àll bi ma di ko liggéey wéeru ci garab gi mu ñëw nuyu ma ne ma yaa Iran na nga def ma ne ko maa ngi mu ne dama lay dégg ma suma la gis mu ne ma dégg naa ngay waxtaan ci xaj mu ne ma sama xaj dama ko jël boole kook samay nag yóbbu leen tuubaatul bàyyi leen fa pour mu di leen sàmm ceetal xaj di sàmm xaj di garde xaj di rëbb yow nga naan doomi xaj ti yow mënoo sàmm mënoo rëbb mënoo dara kon doomi xaj la gën yow kay laa dox doomi mbaam xuux doomi mbaam xuux waaye doo doo xajale gën foofu mu damaa tur mi dina faari xaj bi ne déedéet rek wër ma di ma fóon billahi damaa jooy keroog nee muy yuuxu di xii xii xii di ma fóon ma xam ne damaa namm ma ànd ak moom delluwaat tuubaatul ca gàttee ñuy jaayee xaj un million nga yor xaj bu jigéen ci kër gi muy wasin ngay njëkkante doom ya sa kër gi ngay wax di xeeb xaj ponkalum xaj nga fa teg bu du loon xaj bi sàcc yi dugg fa xaj day garde bu leen kaay nag bu leen defe ne jaay xaj dagan na daganul damay bañ ngeen sukkandiku sama wax ji ba koo da daganul na leer waaye dama bëgg ñuy xeeb xaj bay tuddee ni doomu xaj doomu xaj joojoo gën sa ndey gën sa baay yow dañ lay tuddee doomi mbaam xuux wax naa ko benn kilifa ne ko bàyyil xaj bi ma ko leeralee lii la ne maa xamee wu ma ko woon nii nag wax dëgg yàlla nga jël xaj bi jox ko ndékki ngeen dem ca àll ba muy daw bir di bir di topp lëggi di daw di daw di daw ba jàpp ko ca àll ba séenatoo xaj bi mu ñëw ak lëggi ba ci yow mu mënoon na ko lekk dem ci dafa xiif mu tegal la ko pare dëgg ci xam nga lu muy bañ mu daw mu dëgg ci ba nga téye ci put gi mu teggi tànkam daal di lay fóon dóor génn bi ñetti yoon mooy alhamdulilahi rabbil alamin bi ma fayee boor yow nga yoreel nit boor di ko làqatu soo doon ñëw seen ko rek bu ko ay bu ay damay séenee fànjaar ne baraj ci ruq bi xaj di fay bor nit du fay bor ma wax la leen seetlu ko am na bis ñu wane wane ci France 24 kër gu lakk leen ñu génne waa kër ga xaj bi daa ñëw tëdd ci kanam borom bagage yaa ngi jalee borom kër gaa ngi taxaw xaj baa ngi ci wetam xaj du xaaraan te fii xaaraankat yi duñ fi jóg nit ñu mën a xaaraana ne ci réew mi xaaraan rek te ci nga xaaraankat du naqari deret xale yi danañu làmba làmba awraam danaan garaawul yaa faatu moo ne lii garaawul de laal say awra garaawul yaa ñàkk fayda xaaral moo tax Maodo ne ko xaraamun illa fi talabil ilmi aw fi intisaari salaat Cheikh El Hadj Malick nee na xaaraan ci ñaar la baax toog xaar grand sëriñ mu jàngal la dafa tëj tëjeegul bii ngeen ne génnagul nga toog di ko xaar ñu ne la yow looy xaar nga ne sëriñ bi pour mu jàngal ma ñu ne waaw góore waaye ban téere ngay jàng nga ne risaala aw fi intisaari salaat wala nga teel a dem ca jàkka ja looy xaar nga ilimaan waaw góore waay élimaan ñoo fekk la fa lu dul ñaari xaaraan yi daganu bàyyi leen tàllal loxo tàllal leen ko yàlla wóolu leen yàlla gëm leen yàlla feebar yi ñuy wax ay corona jaajëf xam nga corona yorul xaalis amul mbooloo waaye lu mu tere ñu bàyyi ko lu mu dig li ñu def ko fii gis naa fi ñu bari ñoo xam ne ñoo maskew wu ñaw ñaw te alquran waxoo leen ko ngeen bañ fóonante kenn dootu ko def xanaa buñ duggee ci néeg yi te man li ma jaaxal ñëpp ñi ci ëpp am nañu jabar te ba guddee da ngay dindi masque bi siyaat sa jabar yi ñëpp yaramu ni ngeen di def xanaa corona moom daa am jabar da cay dem ba du fekkee seen raba joo bi te ngeen laxasoo yéen ñaar ci néeg bi man ke su ma doon ministre boobu dama koy matale ku yor jabar daal amal ñaari lal tëddal fee sa jabar fee nga masque moom masque waaye xoolal sel ngay laal boo dóor sa masque te njàpp ne fi njàpp gën a sell lépp soo jàppee bu la seytaani jubee day takk jëriñ mu nga ca samru daani ca saxaaba dama seet ko jëri lay tàkk ku tibb sa tànk dee ku la liggéey lu këpp ci kawam féeg yaa ngi ànd ak njàpp kenn mënul ci yow dara ñu dégaase njàpp indi sel sel lu garaaw la mu ngi ci nag soo ko raxasoo boo dee jàpp ndox mi day xeeñ sel boo ko sel mu amoon njàpp teel leen koo xam maa leen ko wax oustaz bu ko weddi ferul ijji laa wax ne ko Iran ndaw nee na ferul ijji parfone say loxo yow ba moo dumbu nga parfone ko ba mu xeeñ ngay jàpp dem dékk ndox mi ngay dékk ci loxo bi parfum bi da ciy xeeñ boo ci jàppee amoon njàpp sel bi la même chose tubaab dafa garaaw ak mbokkam yi diine ji leen yëg ne moo not ci àdduna bi ñu bëgg a néewal doole diine lii rek ay coow li mais carcère ko gën a garaaw carcère moo ko gën a garaaw foofu man sama furux furux ji xam ngeen ne ko gën a garaaw amoon sama fóox fóoxi bakken ji moo hmm. ti ba tey waxuñ ci dara mënoon nañ maa bu oru faji ma nag mi ñuy indi ay maskat xoolal julli luñ ci wax yonent bi nee na sawu sufuufakum mooy nii tollale mbagg yi tànk yi euh, euh, euh, daje nga xam ne seytaane du mën a potoolu ñu ne il faut ngeen def espace élimaan ne bu leen fàtte espace bu leen fàtte seen masque yi boo dee takk masque jàng fàtte nu muy leere waaye sànni ko fële julli takkaloo leen li yonent bi wax def leen ko sawu sufuufakum yarhamukumullah nee na yemale leen sàpp yi ndax yàlla yërëm leen ngeen teqale ko du leen yërëm yonent bi daan dem di xeexi ànd ak sahaaba yi ñii ñu rey leen ñii ñibbisi ñii ñu gaañ leen Xaalid ibn Walid ñaata jam-jam lañu ko jam ci kaw lalam la dee da jooy bi muy sukkuraat ñu ni ko looy jooy mu ne su ma sañoon ci xare lay dee góor du dee ci marché góor ci xare lay dee góor dee ñeme confrontation gis nga àdduna arène la ko ñeme